yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf néew ba ñu sulli woon taal ko ca leew na ña seen coow la suuloo gurum mbir ya fayegul yëral xët mu njëkkal observateur ginnaaw bi justice sante ñu def ci enquête ngir leeral xam ñan ñoo demoon ci armée de sulli néew ba taal ko yéene kaay bi mi ngi ñuy baaxee secret yu mu amee ci enquête ba ñi ñu jàppagum ci mbir mi l'observateur mi ngi ñuy wax ñan ak ñan la ñi ko sooke journal bi nee nañu toll nañu ci juróom-ñaari nit ki woote woon joxe xibaar bi ba taxoon xam fan la bàmmeel bi nekk yéene kaay mi ngi ñuy waxi ne kookee identifié nañu ko ki ñu ne mooy cerveau bi moom it identifié ko waaye dafa daw enquête enquête bi wane ne ne ma nga ca fa la ko localisé benn waaye bu bokk ci benn famille religieuse bu mag tir bi nañu ñu yoon tegagum loxo ci mbir mi toll nañu ci fukki nit ak benn dañoo daw kenn ki ma ci réewum Gambie ka ci bind nañ ña demoon ci armée li néew bi taal ko jëppét ñi ñu joxte ne ñoo ko def am na ci ñoom fukki nit ak benn ñuy tegagum loxo suur soine ko ëpp na ko ñi ci jàppagum ñoo ngi toll ci fukki nit ak ñaar nit ñi yeewoo ci réew mi di population bu Sénégal ak juróom-ñaar fukk ak ñett dix-huit mille trente-deux mille quatre cent soixante-treize habitants ñoo yeewoo ci Sénégal ANSD di agence nationale statistique démographique ñoo ko wax ginnaaw seen recensement gi ñu doon def les économies bu njëkk dañ doon wax naan fii ci réew mi jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi waaye cinquième recensement général population li mu feeñal mooy góor ñi ñoo ëpp léegi jigéen ñi mu di xibaar ak ob seetlu boobu Le Quotidien mi ngi koy dëggal ci xëtu njëkk li mu bind mooy mal dominant teg na ci di ne département bu Mbàkke mooy fi ëpp ay nit yu fi yeewoo fii ci Sénégal li Quotidien gis ne révolution démographique moo am woon woon ni situation bi wonneegul journal yu bari ñu xëyandol xëy na di ñu xamal ne mooy situation bu Ousmane Sonko anki dina kay bind ne ak duggaatam ci liste électorale yi njaw ma ngi cee xambin bara fer ba mu ngay wéy ba léegi ci diggante Ousmane Sonko ak administration bu Sénégal Sud du Quotidien nañu la ca wax direction générale des élections defu ko parewul ngir jébal Ousmane Sonko fiche de parrainage am yi muy laaj bés bi le jour gis ne coow li bari na gis-gis xotalante amoon na ci diggante kenn ci juge yu CEDEAO ak avocat Ousmane Sonko bi di Juan Branco lise ko nañu juge bi dem na ba naan Juan Branco ku réew nga te xamadi xamee nañu it ci journal lise ko ne juróom-benn fan ci weeru novembre ca la ñuy xam dogalu cour de justice bu CEDEAO bi li ko waral mooy ci juge da cee am ab portugais boo xam ne déggul français yi ñu doon lakk ci audience ba moom juge boobee la ñuy wutal ku ko tekki liñ fa doon wax ñu wax ci tournée économique bi premier ministre Amadou Ba ne kay ay diggée yu waaye maire bu Malicounda di Maguette Sène moom ak gaay mi teeru nañu ko teeru bu rëy la ko yóbbu woon ci mbuur moom premier ministre Amadou Ba yéenekaay bi nee nañu bokk na ci inauguré forage ba ñu def ca Fandaan ga ca Malicounda ginnaaw forage bu taaxum ak yu mbaadaan pël atum keroog talaata fanweeri fan ak benn ci weeru octobre Fandaan daloon ab forage am mu di ab château d'eau bopp maire bu Malicounda bi xamle ne ne fanweeri million ak juróom yi ñu ko moo ko financé dool na ci xamle yeneen juróom ne commune bu Malicounda ko bokk financé coordination réseau addiction dóoba journal l'info mi bind ne Maguette Sène faj na mar wu yàgg wu askanu Fandaan mi ngi ñuy waxit ab annonce bu fa premier ministre Amadou Ba def mu di ab programme hydraulique urbain ak rural bu yaatu ngir Mbuur doomi Sénégal yi jël gaal gi dem Espagne ñu leen di roñ ju dugalaat ci avion di delloosiwaat ci réew mi yëf ya tàmbali na avion bu njëkk bi sursuwaa ne nañu ñëw na keroog ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre fanweeri migrant yu bari yu ca nar a topp xooli scandalu suuf bi mu xëyee ubbil yéenekaay bi dafa am benn waay bu ñu naan Serigne Gora Seye dafa génn àdduna weeru août atum 2009 bàyyi ginnaawam ab terrain bu toll ci 374 mètres carrés ca Sicap Liberté 2 terrain TF 8301 GR 2022 ñu gis fa benn promoteur bu ñëw di fa tabax ñu laaj ko mu wan leen ab acte de vente buy wane ne ndem si yàlla Serigne Gora moo ko jaay terrain bi acte de vente ba 21 la ñu ko signé maanaam fukki ak ñaar ginnaaw bi sëriñ Gora Seye faatoo njaboot gu ne duñ ko dégg def plainte ba dossier ba ma nga parquet notaire yi di Aysatu Ñang ak Binta Rafet Diouf libération nee nañu ñoom ñoo ngi leen di tudd ci scandale bi ndax dañoo def ab fausse procuration ak passeport bu sëriñ Gora Seye wax ca dossier ba ne passeport bi ñoo ngi ko délivré sëriñ Gora Seye le 11 juillet 2019 te booba fekk na sëriñ Gora Seye faatu ba def ci biir suuf fukki at